problème sociaux yi moo ci ëpp léegi bi loolu amee président xam ko yéen ñëpp suivre ngeen mun la léegi nag toogal sa kër wala wàññil sa ay déplacement ma jàppalee la téeméeri kilo ci ceeb ñaari saaku cinquante kilo ceeb dix-huit maanaam fukk ak juróom-ñett ci ay saabu jox la lu toll ci fukki litre dëwlin mais également pâte alimentaire mu jox la ci lu toll ci fukki kilo loolu ci ménage Sénégal ku ko xool dina la mën dundal weer wala ñaari weer ñuy ñaan balaa lool di jeex feebar bi jóge fi bi ñu defee xayma bi ci biir Tivaouane ñu ni Tivaouane war na am 4114 ménages yoo xamante ni bu ñu boolee RNU bi ak impacté yi lu toll si ñeenti junni ak téeméer ak fukk ak ñeent ci ay ménages war nañu war nañu am mais ñooñu

ñu def ko de manière démocratique et scientifique avec transparence acteurs yëpp toog ñu tànn ñu ni quartier bu ne lii nga war a am ñu appliquer benn taux par rapport ak li ñu amoon ci RNU bi tey jii loolu lañ dajale woon pour ñu valider ko. 75 quartiers et sous quartiers la ñu am nga xam ni comité yëpp day day day teew ñu xam ni benn njuuj njaaj amu ci lépp nag buñ ko yéegalaatee indi ko mairie ma def ko benn liste pour Tivaouane. wax quartier bu ne ñaata lañ fa jël ak ñan lañu fa jël parce que am nañ liste RNU bi am nañ liste bi signé ko jox ko préfet su ko defee nag séddale bi mën a jaar yoon ba kenn du ni parparloo daf ci am. ki nga xam ne day xëy xëy na lu mu paase sax dina ko jafe mu liggéey añ liggéey lu mu reere utaat paas pour xëyaat defaat la même chose soo ko confiné xëy na dina jafe mu ni loolu lu waroon a mën a nekk la mais tant eggaguñ ci wax population yi te defuñu nañu xool yan stratégie la ñuy def mu ni léegi nag rendre nañ obligatoire le port du masque maanaam ñun ñu nekk fii ñëpp tey jii dañoo war a sol masque benn kuy dugg ci oto da ngay sol masque kuy dem marché da ngay sol masque genre masque yi ngeen gis tailleur yóbbu nañ ko ba ci autorité sanitaire yi ñu ni leen lii baax na ñu ni nag kon nañ ci defarul buñ ci defarul nag nañ ko delloowaat Tiwaawan ñu jëlaat donc lu toll ci Euh, association bi ñu commandé leen 3000 masques ñu ngi leen di remercier di leen féliciter ñu livrer à temps ay nit yu ñëwoon ci ñut mais toujours ay tailleur Tivaouane proposé ñu ay masques ñu jënd ci lu toll ci 2500 masques kon tay dama war a ñëw le comité bi nga xamante ni Pape Talla Dieye moo koy coordonner 5500 masques yoo xam ne distribution bi du doon ci ay structure du doon ci ay association mais ci jeunes yi la ñuy

pour une valeur boo xam dina yegg suñu paree 17 millions 500 mu fekk si les 6 millions 500 yi nga ni parce que bu leen fàtte daara yi rek nañ leen 10 tonnes de riz en termes de de terme de d' de thermoflash des produits ay bouilloire ay kit de nettoiement si ñu boolee lépp na presque 6 millions 500 su fekk see lii nga xam dina 17 millions 500 dina doon près de 24 millions 000. mais lépp nag jógewul ci ci maire bi parce que mbir mi. bu muy door il fallait parer au au plus pressé li ñu mënoon ci lijjanti ak suñu wàllu bopp dañ ko daal di def mais lépp boo ko boolee defe naa ne yëpp si Tivaouane la dellu dina doon une de de 24 millions boo xam ne nii def nañ ko tey jëmale ko ci lii nga xamante nii moom mooy la euh, le Covid le Covid 19.